صلوا يا عباد الله عليه سلم هو المصطفى خير البر صلوا يا عباد الله عليه سلم هو المصطفى خير البر فقرس لله فضلا وبالأولى سراجا أنار للوجود وواقع خلقا في ملكه لا ينال جرى خدره في الكعب ذات معمرات بين يا فاق رسل الله فضلا وبالأولى سراجا أنار للوسود ذوي الدلا لولا خلق خلقا في ملكي إلينا جرى خدره في الكاية إنايات مؤملات subul badaamil talati xayril bariyati wala shamsun wala xamarun la najmun la wala ziyaratuna fi kulli yawmin wasaatin faqbal xula taxrim rajauna al muammala ziyaratuna fi kulli saatin wa yawmin la taxfil wala taxrim rajauna al muammala فتمم لنا المقصود يا رب يا ليس معنا إلى دود وديدانا واغفر لنا عند دخول الخبر يا ليس معنا إلى دود وديدانا مدعي لسبور ونار

ziyaar naa ñi ànd ak yow digeeg yow ki am war ma ziyaar naa la bàyyi la yow mi doy loo sa burooma ziyaar naa ñi ànd ak yow digeeg yow ki am war ma bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ginnaaw ban sante yàlla julli si yonent am tedd ba sayyidina limaamullahi mahdil almuntazar ñu ngi nuyu suñ mbokk jullit yépp ku dégg sikkar si dégg mujjantalu sikkar si sa xel war naa dem ni kon am na lu xew ndax ku gis toogaay bii gis président ñeen aada nga xamante moo yilif fédération des daayira du Sénégal gis sa wetam Chérif Idrissa Thiaw Lahi ibnu Chérif Abdoulahi gis Adja Ndiémé Ndiaye laay de présente conseil national des femmes ak Abdourahmane Thiaw ñu gën ko xam sa maxeet secrétaire général bu fédération des laayeen du Sénégal kon waa xam ne am na xew-xew loolu ban xew-xew la dun suñu dun su dugg dañuy jëbbal kàddu gi ki nga xamante ni bi sëñ Abdoulaye di ut ku mu àndal pour taxawal fédération moom la woo kooku mooy kan mooy libaas aada ñang ñu gën kaa xam si ngeen aada mu wax ñuy xew-xew bi lan la. jërëjëf yàlla yàlla fay leen comme Baye Tafa ni mu ko waxee rek léegi ñun ñëpp dégg nañ ni nga xam ni moom la ko Baye Abdoulaye daan defee moom lañu ko bëgg a defee la sëñ Mamadou Makhtar xalifa général de Layène mu ngi ñaan ñëpp naka Baye Abdoulaye daan defe ñun ñëpp mu defal ko Baye Mamadou Makhtar. di ko ñaanal fan bu gudd ko ànd ak wér yàlla na si yàlla yóbbu jàmm ñu ngi woo nag daayira góor yi ak ñu jigéen yi ñu ngi ñëwoo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu non daayira bàyyiwuñu kenn bis ba bu soobee yàlla incha allah le trois fas nañ ko yéene ziyaara incha allah ca yoof yàlla na si yàlla yóbbu jàmm te fekk ak jàmm ci barke bàyyi lay seen sa bàyyiwuñu kenn nag waxtu wa trois heures bu jotee na fa ñëpp fekk ñëpp ñu def li ñuy def incha allah wàññeeku waat bu soobee yàlla la sa des sëñ bi dëkkaagale nu ngi koy bàyyi bàyyi de yal na ko yàlla jàppale di ko ñaanal ba lu gudd gu ànd ak wér jaamu yàlla gu nu nangu yal na ko yàlla def woyofal ko lépp xam-xam gën a yokk mu gën a mën a taxaw nit ñi ci barke Baye laa jërëjëf laay ma kon mbir maa ngoog ku ni ziar Seydina Mouhamadou Mokhtar Laye ibnu Seydina Mandione ibnu Seydina Limamou alayhi salaatu wa salaam kañ la le 3. fan la yoof dégg ngeen président nee na bàyyiwunu représentant bàyyiwunu président daayira bàyyiwunu kenn fédération moo koy organisé waaye ziar bépp yëpp laay yëpp la war du su ko sat lu bari ndax dañuy jox bàyyi idda mi nga xamante ni moo la ñu magal magam booleel mu jiitu ñu topp si si préparation ziar kon ñu jox ko kàddu gi mu wax ñu lay say xew ak naka lañ koy defee alhamdulilahi rabbil alamina kon mbokki jullit ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm ak sutura fu ngeen mën a ne ci àddina yal na leen ko yàlla defal waaye di nuyu sunu xalifa sunu jur Duudu Moxtaar mu Seydina njoon di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te dolli wéram te defal ko nooteel defal ko njabootug bàyyi gi yëpp rakkam yu tedd yi topp ci ginnaawam sunu wayjur Baay Bas yàlla na yàlla gën ko dëgëral ak rakkam yi mu ko seqal ñëpp ak mbooleem ahlu bayti bi suñu mag yu tedd yi di wax rek ne macha allah ñu ngi fi tooge ci kàddu sunu mag général Baye Ndiin Thiaw mu tedd mi nga xamante ni ndigal li ci moom la wàcce mu boole noog ak fédération ak groupement central at mu jot ñuy taxawee li nga xamante ni mooy ziyaara bi nga xamante ni way jur wu tedd wu baax wa nga xamante ni bàyyilaay mu teddama alay salaam moo ko signalé woon naan Abdoulaye ma ca biir Abdoulaye ya bis bu ñëwee ñépp dina xam ni yàlla moo ma yónni sëriñ kat yàlla baaxe ko mu am ngërëmal baayam Seydina Isaa Roolaahi waaye mu am ngërëmal baayam ma Mandione am ngërëmal baayam maam baabakar waaye am ngërëmal magam ju tedd ja sunu baay Seydi Thiaw am ngërëmal Seydina maam Alassane waaye am ngërëmal rakkam yépp ahlu bayti sol sëriñ Ablaye moom nga xamante ni ah moo fi sosoon ziyaar ni ko Ablaye Fall di wooye nga xamante ni moo ko defaloon woy juróomu tedd wa Seydina Mandione mu jógee fi mu defal ko sunu baay Seydi Thiaw mu jóge fi mu defal ko sunu baay Raan ba yàlla dogal moom mu toog ci jal ba mag ñëpp nag nekkoon moom mi daan teral sunuy baay di teral sunuy mag nanu àndandoo ñu teral ko ñu def ko lu diiru fukki ñaar fukki at yàlla dogal nag mu génn àddina yàlla dogal ci at mii di deux mille vingt deux ñu war a ziyaar nag ziyaar boo xamante ni bu rëy lay doon war ko ziyaar ki ko uutu di rakkam di xaritam di léppam di Duudu Maxtaar mu ma Mandione su ko defee ñu ngi soñña ñépp ndax amuñu lu dul Baay Laay waaye amuñu lu dul njabootu Baay Laay su ko defee sëriñ bi joxe ne ndigal daal moom général wàcc ko ci président Bandine Aada ak waa groupement central ak mboolem diine ji ne incha allah le 3 décembre la nu fas yéenee daje yoof nga xamante ni fala sanga bu tedd ba tëdd moom Seydina Limaam mi nga xamante ni mooy Seydul Urbi wal Ajami ñu jooxale fa sunu ziyaara jëmale ko ci xalifa bi waaye comme nañ ko daan defee rek la nga xamante ni mooy maye ya daan am muy mariage collectif yi incha allah moom it noonu la ci sëriñ bi joxe ndigal boole na noo ki nga xamante ni moom la jox yëf yooya dem nan ba ci moom waxtaan ak moom la nga xamante ni daal lan ca jële ci ndigal mooy lépp loo xamante ni nan ko daan doxale rek te diine nangu ko joxaan nañu ci ndigal su ko defee ne ñëpp a xam ne incha allah maye yi day am muy mariage collectif yi waaye nag nin ko xamee woon ñëpp a xamee ko du ay mariage forcé ay nit ñu bëggante wayjur ya ànd sa ñu yombalal leen ko rek loolu rek mooy la ca ne cen la itam sa nga ba joxe ni ndigal ne ñaari junni rekk la su ko defee loolu lépp ñu bàyyi ci xel di ñaan yàlla yàlla na si yàlla yóbbu jàmm su ko defee bàyyi njin aada junja na ko sëriñ Ablaay moo ko daan wax euh, ne aw fas ku ko yeew faw nga gubal ko kon nag ñun amuñu lu sunu sang yu tedd yi di leen sant di leen gërëm ndax ban ko dalee tàmbali ba tey taxawaay bu am solo la ci communauté laayeen am mboolem dëkki laayeen yi nag kenn demul nu des lanu leen sas matal dinañu koy matal ca waxtu woon ko soxlaa def ca lan ko war a def kon lool tamit ci kàddu sëriñ bi ñu jële ko ci bàyyi njin aada ñu ngi sant mbooleem dëkki laayeen yépp waaye di sant mbooleem daayira yi su ko defee di leen sant ci kàddu général ndax gis nañu bu baax a baax a baax tàmbali gi nga xamante ni tàmbali nañ ko ci ba nu ubbee ba tey barki dem ba rek mu naan waxal bàyyi njin aada na gërëm daayira yi ci taxawaay bi nu am kon nag daayira bi sëriñ baa ngi leen di gërëm ci taxawaay bi waaye dafa bëgg népp nu ngeen taxawoo woon ci yi nu weesu bis bii nu dëgmal di la trois lu ngeen gënoon mobiliser wu di ngeen ko mobiliser ndax ñu teral ki nga xamante ni tey mooy Duudu Moxtaar mu sunu maama Njoon di xalifatu rasulillahi fil ardihi nga xamante ni baay sunu mag ju sunu baay bu tedd ba moom Serigne laay moo daan wax ni ki fi war a toog rek a fi toog te ku fi toog ñu branché ko kon tey moo fi ne yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal dolli wéram waaye nag ci kàddu Baye Njin aada ak fédération ak groupement centrale ak euh, ñi nga xam ñoo seq liggéey bi ñu ngi fedd li sunu cant ak suñu ngërëm ci Seydina Laay mi nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy taawu Serigne Ablaye mus di ànd ak ñun ci liggéey bi ba nga xamante ni Serigne Ablaye génn na àddina 2021 wax naa ko ci ay waxtaan yu bëri yàlla dafa dogal nu woon sax ziyaara waaye moom Seydina Laay ci boppam moo dem siyaar euh, euh, xalifa bi waxtaan ak moom ba mu fa jógee nag la wax ak Baye Ndiéné li mu bëgg daal ñu def la nu daan def ñu xool nu ñuy terale xalifa bi kon nag yaakaar naa ni 2021 bi noonu lan ko defee woon amul woon yëngu amul woon dara waaye daal lanu sëñ bi joxoon ndigal moom Seydina Laay jox ko général mu jox na ko ñu ànd ñun ñëpp teral xalifa bi waaye nag ren dañu bëgg nag def nan ko daan defee ñu ñun ñëpp ñu xëy du yoof ndax la fa war a nekk cay xéewal dana fa ne waaye nag bis bi daal day tàmbali suñu julee tisbaar ba pare daay rey nag tàmbali tudd yàlla gi mag ñi nga xamante ni ñoo war a seq maye yi nag ñu nekk ci néegu yàlla boobu nga xamante ni mooy jàkku jàkkub Seydina Limaamu ñu mayee fa mayya suñu paree ñu génn sanga bi ak njaboot gi ànd nag ñëw waxtaan ak njaboot gi sant leen gërëm leen la ca des nag loolu rek lay tëdd di ñaan yàlla yàlla na nu ko fekkeek jàmm te tal ko su ko defee daal damay jox Ablaye Fall mu waxal nu wax bu am solo boobu nga xamante ni waxtu nu daan toll fii rek ci ay jamono sunu xel da ciy ne waaye nag sëñ Ablaye dem na waaye sëñ Ablaye moo fi nde ndax sëñ Ablaye mooy Duudu Moxtaar Duudu Moxtaar mooy sëy mooy sëriñ Ablaye kon Ablaye Fall la nga daan wax ci waxtu wii suñ si daan tollu jëm ke ci ziyaara bi loolu lan bëgg nga tëjal nu ko bis bi tey di ñaan yàlla yàlla na ci yàlla yóbbu yóbbu ak jàmm kon Abdoulaye ziyaar bi ñëw na yow la ñuy déglu bismillah nu lay ziyaar loolu moonu war yaa fi sos nuy siyaar sabay ma njoon um nga lamba jee siyaar bi ñëw na nun nu lay siyaar loolu moon war yaa fi sos nuy siyaar sabay ma njoon um nga lamba jee Abdoulaye Thiaw sa baay dem ba isaa mi xawsul wujud yaa ko taxawaat nuy siyaar donoy ma um nga lamba jee bay Seydi Thiaw laay dem ba ñoo rakkam ja Seydi raana baax doomi mam falaay wan mi ndeefi kay donoom um nga lamba jeeng bay siidiraan nan ko abdulaay anta wadiiru naa man de doy nga ma doxal sa diine maam um nga lamba jeeng yelloon te ñépp xam ne baay yaa yoo siyaar kun mu siyaar yaa ko jiite nuy siyaar up nga làmb jeeñ moo tax nu ñëw ànd ak rakkam yi ngir delloo njukkal seydi abdulaay noo ngi lay siyaar sango ub nga làmb jee doom yaa ngi nii soppe yaa ngi nii bàyyi sët yaa ngi nii diina jaa ngi nii ñun yaw rek la nuy bégee ub nga làmb jee yam looti naa fi tàggu Abdoulaye waaye naa ñëwaat manuma am lu gën way la Abdoulaye Sango lamba je wa Idrissa nee na ndigal la Maam Libaas ibnu Abdoulaye nee nan siyaaru Duudu Maxtaar mu maam ma njoon lamba je way ndigal la seydi mam libaas ibnu abdulaay nee na siyaar duudu maxtaar mu mam njoon um nga lamba ji way salaatan ma salaam ala njiin mu abdulaay ñoo ngi ñaan samaam yàlla may landam sango ub nga làmb je